dund mu ngi jaare si président Bougane Gueye Dany bu weer de comme li mu ko waxoon ko rek bi ñu ko tëjee def ni ëmm si benn problème lañ rek laa doon xalaat mooy ñi nga xam ni seeni doom ñi ngi war a jàngi te seen salaire si man la wékku ma war a génn dem lijjanti ko loolu rek laa doon xalaat mais sama njaboot sax xalaatuma leen ndax préparé naa leen xam nga Sénégal il faut ñu nangul nit li ko suñu borom bi may da dégg ko naan la président Bougane xam nga li mu def dafa ëpp walla nangam nangam koo xam ne sa ñaari loxo nga yëkkati kon loolu joxe nga war ma kon foofu ñu ko dugal jàpp naa ne du palaasam président Bougane du palaasam reyul nit sàccul dóorul waxul lenn lu bon damaa yor sama alal di dimbali ji ay nit jug quatre heures du matin teg si xoolal boobu acte ni mu noobulee lu mu mënoon a def pour man waroon na waroon na mën a oyof lu mu mën a def rek. ndax xam nga moo tax eh. ay junni junni nit suñuy mbokk yu nekk si jafe-jafe eh. ndax jàpp naa ni lislaam sax day bàyyi xel acte lislaam da koy bàyyi xel yàlla suñu borom dana bàyyi xel nit ki yéeneem kon yaakaar naa bu fekkee ne acte boobu quatre heures du matin ku ko jug bàyyi sa njaboot jóge dakaar ba Bakel nga ñëw di dimbali si ay nit ba lii fekk la si tey lu mu mënoon a xew waroon nañu mën a xool fi ñu koy denc pour man waroon fa sax mën a fanaan du fa pour man waru fa man a fanaan ndax bu ñu xoolee da doon dimbali ñooñu ak fi réew mi toll ak jafe-jafe yi ak waa Bakel fi ñu toll. wurtoo la man a fanaan foofu pour ma. Ah, daa def loo xam ne dañ jàpp ne erreur la moo tax ñu fanaanal ko. lu mu mën a def rayut nit sëñ bi. Dakar mais prison du ñu rey nit parce que boo defee délit. waaw dañ ne fi ñu ko dugal la ndax fi ñu ko dugal du place am dañ ko téye nañ ko dugal faneen fulu foofu. mais sàmburu quarante quelques personnes. est-ce que palaasu président Bougane koo xam ni cinq mille personnes ñoo nekk sa ginnaaw boole ko ngay leader. bokk ci liste bokk ci mouvement dem di dimbali ji ay nit yow xam nga ne oto ya nga gis président Bougane gaare ko Bakel ak ñamu àndal fee ñu ko dugal ay quarante nangam personne du place président Bougane ak war ma ji mu joxe ñu jox ko bërëb boo xam ne day yaatu. ñu taaral ay clim comme ban joxoon Ousmane Sonko. waaw comme ban joxoon Ousmane Sonko muy dallu di sport di seetaan télé boobu la ma doon jox président Bougane bu bëggee sport sport su bëggee dallu dallu. su bëggee recevoir ay nitam recevoir ay nitam ab sénégalais la doomi réew mi la def fi loo xam ni wax ji wax ji ñi fi ne kenn defu ko fi ñett nit ñett ni mus ñu koo fay nan ko jox cëram mais pourquoi ngeen ragal mu toog une semaine bientôt le 30 jot parce que tey le 23 la 30 soreetul maanaam maanaam du du jéem comme guerrier la mu ngi guerrier guerrier lu waruñ ko mën a téye fanaan benn guddi xëy ñu naan fam nekk fitam jamono ji dalatul ndax ñu ngi ko boole ay criminel lañ en même temps danoo bëgg a yàqu dundam loolu it xawata teel bopp déggoo ci benn guddi wallaay déggoo man la ragaluma ko. ci ku ne woon pare naa dem prison ba fu mu gàddu gàddu sàq na yoon. bi woon Cheikh Mourtala ragaluma hmm. ndax xam naa ki ma àndal si ngoram si ngarmem ku xam fi mu jaar président Bougane bu la waroon waxoon ay jaar-jaaram fi ñu ko bindoon nga xam ne lii garaawul si koo xam ne yaa ngi bëgg a yóotu Sénégal ëllëg yaa ngi bëgg a jàmmaarloog régime boo xam ne ñu naan la Ousmane Sonko président Diomaye lan lii lii lii lii lii day dem noppalu ji rek gën a dallu gën a réfléchir gën a xalaataat bu baax mais dama ne fi ñu ko dugal laa la wax mais président Bougane téye ko si kaso leader la Idriss sekk jaar na si Ablaye Wade ñaata yoon fi la ñu fekk vingt cinq la opposé wu ah ñii fi nekk tey jaar nañ si bërki démb bu téyewuñ ko téye Cheikh Yérim Seck waaw kon ban problème la am moral bu baax dama ñu la jeudi la ma wax li ma wax kay jeudi la ni ma lii may fii ma jëm ku ñemewul doo si ànd ak ma mais mais Bougane te Sénégal dong ko tax toujours mu doon insister nañ ma jàpp boo demee Bakel nañ ma jàpp wala ngeen bàyyi ma ma dem doxee sama soxla. avant loolu xam nga arrêté woon nañ ko fii garde à vue ko si lendemain ba procureur déglu ko bàyyi ko. Hmm. boobu it ay wax ju noonu da ko wax président moo ko pourquoi mu insister nañ ma koo digal ne ko dañ laa war a tëj. jàpp ne politique gu Sénégal il faut ñu tëj la nga doon. guerrier non nga nit Ousmane Sonko jàpp nañ ko fi yóbbu ko këram ba yenn heure yi ñu ba ko mu dem am na taay da ka daan wax bàyyi leen ma wala ngeen jàpp ma da nga ko daan wóolu mu jaar euh, Colobane jaar Sandaga jaar université fu ne mu jaar fa. ba ful ah ah. bu daan génn pour dem dañ ko daan gàllankoor. jeex na looloo dal président Bougane mi tey mu génn dem ñu koy gàllankoor loolu waroon a jeex Sénégal su nguuru président Diomaye ñoom ñëpp ay ndaw lan nañu jàmmaar loolu lépp nekk ay yëfi gentleman rafet ay ndaw lan Ousmane Sonko nga woon jam euh, ñaajo woo ay nitam di def ba pare ñi la jam naa ñi la Macky Sall def fi dara te fa nga doon defee magee ko fi def loo nga romb ak tali yaa nga romb ak lamp ya fay tàkk yëpp ma yoo ko fay def ngay def fi dara. Macky defal ko si àll ba àll réew mi la ko defee de. <laughs> yooyu <laughs> non Sénégal Sénégal Sénégal réew mu neex la man nag daal xam naa euh, jeunesse bi war nañ xoolaat seen bopp. ndax olof nee na. Hmm. wuute ni la gis rek lay awalee. mais est-ce que du yéen maam dafay dégg da ngeen inceste si ñëw kii ba danañ si ñëw bëgguma ñu gaaw cee dugg trop dama bëgg ñu reste si arrestation bi euh, le 30 bi lu ngeen di waaj le 30 bi moom euh, ñu ngi koy waajal incha allah rabi di génn non ñu ngi koy waajal ñi naan 24 heures ainsi de suite jours ya fa président hmm. ko ko yàlla na fa génn si jàmm ak salaam ndax du palaasam sénégalais yi dañ ko soxla ndax des fois ñu wax ñu loo xam ne dënn lënt suñu bopp mu génn leeralal ñu ko des fois ñu gis loo xam ne lënt na suñu bopp mu génn leeralal ñu ko ñoom it nañu génn tontuwaat ko si ay argument foofu la Sénégal toll débat bi dafa a ibbeeku xew léegi ay saagante yeeg xam nga wax yu bon yi amul benn ko ci génnam bu passé dem na ba fu ñu jaar ak Macky Sall ko fa bëgg a ñun il faut nga doon guerrier na nangu na nangu waaw léegi loolu nag loolu nag na nangu li ko Macky Sall mayoon rek moom Sonko Macky mayut ko woon dara. ankay ankay waaw dem nga ba ñu barricade sa kër boo buggee génn ñu dóor laay grenade la kër Masar boo buggee wuy ci tribunal la doo jaar ci terrain bi boo a jaar doo dem image yaa ngi bi ñuy mi ngi fi image yaa ngi fi waaw image yaa ngi fi xam nga fàtte dafa gaaw mais yàlla nañu li président buggaa ndax jamonoy télé ci poste dafa tombé ak jamonoy téléphone gis nga mënuñu ñu mënuñu ñu nax fekk na lu bëree bëri ñu wóor la nga ni jeunesse bi génn leen buñ bi mu naan président Bougane buñ ma jàppee si ñun lañ jëm si ñun ñëpp la ñuy jàpp. Hmm. loolu fi dañu fekk. mais xam nga loolu li am solo. côté génn gi moom est-ce que du dafa am ñoo xam ne gëmoon nañ ko pour génn dem xeexal ko boo déggee mu naan jàpp leen ma. Hmm. xam na ni allah kulli àllin ñi ngi si tànk ñun ay olof la xam nañ ko wax ni muy ni muy demee. baat daa xam lu nit ñi xamul tànkam comme nan bugaan dafay def infraction wala daa def crime. ba ñu war ko mën a jàpp si lu mu def li mu def dégg goo benn borom xam-xam bu ñu la crime la wala waru koo def.